mom mu sa nopi ci lu mu wara wax ndax bako yàlla joxe àlluwa ju lëw dégg na baytu Sëriñ Tuubaa bi wax ne fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu qabla al mamaati yubtala képp koo xam ne xam ba góon ak xam-xam ne pat ba dem ak moom kenn jëriñu wucca waxuñu ëllëg waaye balaa faatu sax yàlla dana wax tax ku mat a jàngale la ci jamono rawatina ku yore lu ñuy wax ab yan kuñ yan nga yanu bokk yi moom mus sa noppi ci benn xew-xew boo xam ne day xew ci réew mi rawatina nag loo xam ne day laal diine mas na fee jàkkaarloog député yooyee mu jàkkaarloo lool ba leen di wax ne xool leen loi yi ngeen di yóbbu assemblée yi ñuy indi assemblée ngeen di ko wote ndax lu way wate fi bañ attu ci julit ñi bu ëlëgé dang ko la yow ba yag sax mu def ko ab jël allah allah am ci foo tool di ko dégg seere woon na fi séré so xamné ne ci sëñ Abdul Xaadir la ko séré won néna julli gi mu julli euh ta kero kero mo li xam sëñ abdou khadir jité kero mo li xamone mom sëñ abdou khadir jité mu ne ma julli gu ma mës a yi de di ci ñaaw njort di ca am xel yaar waaye gii moom wóor na ma ne julli gu ma sëkk la seen wax yooyu nag bokk yi mi ngi fi ba tey ana njaaroon dañ leen a indi woon ci jamono jaarale leen fañ leen jaarale waaye yàquñu ko nag ndax diw ku baax la ku baax a ko mën a wax ka koy wax makarimul akhlaq mang ci mom reey rëy ci mom moom kañaan nekkul ca moom soxor nekkul ci mom diw ku bax la rek limi yomb yomb yàlla na dafa dégg ak top te musul seytaane ak pakam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin